Euh, ñu waxtaan ci euh, actualité du jour sortie bu Mary Teuw Niane RFM si li jëm ci màggal Tuubaa yi ak gàmmu yi Mary Teuw dama koy tontu directement moom peut-être du taalibe du murit moo tax xamut contexte bi xamut les réalités xamut euh, mbir mi ni muy doxee dañ koy yee rek ne ko fii si yoonu murit opinion amoo fi amut négociation amu fi yoonu murid li fi am mooy ndigal euh, ki war a joxe ndigal su ko joxee dañuy màggal ki war a joxe ndigal su nee màggaluñu ñu ñu màggal ki war a joxe ndigal lu mu santaane mooy am du opinion du négociation du up front yoonu murid du up front loo xam ne li ñuy négocier la walla lu ñuy li ñuy lu ñuy dox la euh, ki yoru yoon wi mat na li mu doon xam na li li ko war xam na lu ko taxawaayam xam ne taxawaayam si mbindeef yi kon kooku defe naa ne du dem si ay RFM wala dem si ay rajo di wax sa opinion mooy tax ñu revoir wala ñu ñu ñu ñu xoolaat wala moom mu xoolaat lu mu war a décider kooku moom wax da dëgg yàlla Mary Teuw Niane wala ak bépp membre gouvernement bu Sénégal xam naa ne fu mu toll nii li jëm si màggal gi moom ngeen teg seeni bët. waaw li jëm si màggal gi ngeen teg seeni bët li jëm si màggal gi mooy seen problème parce que waxu leen woon si ba tabaski bi jàllee rek ngeen tàmbale si màggal ak gàmmu màggal gi nag da ngeen ko teg si suuf tuubaa tamit da ngeen ko teg si suuf li ñu leen di wax rek ku si bëgg bës wala mu bëgg a politique wala mu bëgg siiw jël dara teg ko si waa Touba mais màggalu sëñ Touba bi day ndigalu sëñ Touba boo xam ne ki si sañ a bind ak sañ see def mooy xalifaam bi du lu état Sénégal du négocier ak moom mu ba ko mu ñàkk koo ba benn bu état Sénégal amee failure wala am euh, loo xam ne war na koo dox si seen feebar bii nga xam ne da ngeen ko yor te mu am andi ay problème si problème de communication problème de nangam te yëpp ngeen nekk seen seen incompétence ñu bëree bari si gouvernement Macky Sall bi teg ko ko kon bu ngeen ko tourner si Touba euh, ndax lu jugoon depuis au début contamination Touba l'axe du mal Touba nangam te tey fu ñu mujjee gis ngeen ni suñu borom def. waxatu leen si loolu léppi centre bu ngeen koy wax ndakaaru la lu tax ngeen ciblé Touba lu tax ngeen ciblé lu jëm si Touba rek vous êtes partant journaliste yi la même chose lii xew si Touba tey nga si wax tey muy actualité assainissement bi nga xam ne murid yi jëlal sëñ sëñ bi jox na ko Touba sa kanam muy actualité du jour muy loo xam ne dans l'historique du monde fu mu mës am benn mbooloo mu toog dajaloo 72 heures ndajale ñu dajale 1 milliard loolu moo doon nekk. Euh, titre yi moo doon a nekk l'actualité du jour moo doon a nekk le modèle moo doon a nekk lu ñëpp tey di waxtaan waxtaanee moo doon a nekk lu journal yëpp di bind ba mu wër ko def ci assainissement loo xam ne état la waral gouvernement la waroon ba def ko ba ay nit toog di ko dajale pour defal ko seen bopp kon loolu moo doon nekk l'actualité euh, du jour moo doon a nekk actualité de Touba nekk lu ñu war wax ci Touba moo doon nekk le référence bi ngeen waroon a wax waaye bëgg jël màggalu Touba bëgg jël Covid 19 nit ñi bu ñu dajaloo tàmbalee ak kër ay problème virtuel la yoo xam ne wóoru leen xamu si nu mu war a demee bëgguñu préjugé kooku mënul nekk te duñ ko noppee. bu lu ngeen am lu ngeen di conseil conseil lañ ko seen gouvernement bi nga xam ne lépp lu mu def fële la fii si Touba ba toog nit ñi dajaloo gasal ñu suñu dëkk bi ay kàmb ndox mi taaf yi nit ñaa mënatuñ dem mënatuñ dëkk ba toog murid yi di ko contribuer di ko dajaleel seen bopp pour defal ko seen bopp. loolu ngeen tey moo doon nekk l'ordre du jour moo doon nekk l'ordre du jour journaliste yi ko invité moo doon nekk li ñu waroon a wax Aliou Ngoye Ndiaye tamit bu mu génnee fi nga ko bëggoon a pousse mu wax xam nga ne dafa wax parce que dafa dina jàpp ko waaw ba mu génnee si conférence de presse am andi ngeen le cas de pour màggal gi rassemblement yi te bu ñuy wàcc tabaski rassemblement yi yéen ñii di poser question kenn waxu si bi ñuy dem tabaski waxu leen di évaluer les risques ak déplacement région to région ngeen bàyyi ba mu jàll ngeen ëlbati ko taxaw ñu ne taxaw ñu ne lu fi sës ban événement ñu ne màggalu Touba mais sëñ bi da di toog ngeen dal te réglé fii ndigal la fii dox opinion doxu fi fi mooy Touba opinion doxu fi waaw euh, bëgg-bëgg doxu fi euh, euh, xalaatu keneen doxu fi négociation doxu fi benn ndigal la fi am muy la xalifa général des mourides bu nee ñu màggal ñu màggal bu nee ñu dee ñu dee bu dee ñu gas suñu bopp gas suñu bopp ñu dee bu nee ñu suulu ñu suul suñu bopp